acca gars yi ah bëgg na leen siyaar leen comme ni ñu koy defee ah di leen toppal champion ndaanaan yi te nag euh, dañoo déplacé ñoo ba mu bëgg seeti champion bu mag koo xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb ah muy Robert Ndiaye numéro boo leen xoolee am combat combat nommé ah le 21 janvier 2023 fële ca Palmarin ah, tax te ñu déplacé xool seet si ko lu muy ànd ak ni muy waajalee combat bi xam naa dañuy bàyyi mbër rek mu nuyoo mbokku téléspectateur ñu koy suivre à travers Zambro TV Robert nuyu la. Euh, fay nañ na yaayam jàmm nag activité yi gis jàmm bu baax di rafetlu sa teewaay bu baax na parce que loolu solo seen yëg-yëg la quoi te aussi gis nañu am na yëg-yëg si doomu aadama budul yéen budul yéen duñ dem budul ñun tamit doo leen dem na parce que ba jàpp naa ne ko ñoom bokk benn liggéey bi di kontaan di lu lii bu baax ndax mbër mu ndaw moo amul lu dul bëri quoi te ñun bëri mooy suñu tiitar affaire yooyu. ñu ngi dëkk tefes nag ku na xam-xam ni bëre lañ taxaw bëre mooñ tax a jóg na parce que bëre tax nañu bàyyi lu bari tukk nañ fi dëkk ñëwaat teewul ñu àggale suñu mission yàlla duñ suturaal bu baax aussi ko xam Rabel Ndiaye xam ne moom mu ngi toj xam mu ngi def lu nekk si làmb làmb moom wax dëgg fa neex yàlla man maa ko desal te aussi chaque jour maa ngi si quoi ma fekk maa ngi si maa ngi si contact yi xam nga combat bu ñëw nag dama koy def ni sama combat bu mag na parce que man damay respecté adversaire ak affaire yooyu di sant sama wajur bu baax tamit ne awma ma seen fay ndax luma ma nekk soo ba jant soo ñu ma si ñaanal to si mom doomu aadama bo amé ñaari waajur pour nga sonu di yom di sant tamit sama wa igéri tamit ñom combat bu mënta am bëre bu ñuy mënta def ñun ñu ngi si to si tamit ay ndaw lañ ko wa ñay jappalante suñu biir chaque jour ñu ngi ci contact yi ñu ngi ci entraînement yi di sant tamit suñu fan ci club bi tamit ñu ngi jappalé bu baaxa baax combat bu ñu am ñoom ñëpp ñu ngi siy yëngu sant Cheikh isa Sall maire Mbour mom bàyyi loxom ben bor à chaque fois mu ngi jàppale ci lepp si li ñu bëgg ci làmb mu ngi siy jàppale ko mo nek suñu président igéri kon koko am fayam yombul kër gi nga jàkkaarool ni moy suñu kër fay bu ndaw njaayeen mooy étage bi nga jàkkaarool ni parce que sama papa yi bax yi nga ñom Khalifa Ndiaye ñom Père Ousmane ak ñom papa yi ñoo tamit nit ñu bax lañ tamit su luñ nek so ba jant so ñom ñu ngi ci jàppale di rafetlu sa teewaay daal xam ni loolu am na solo mba ginnaaw bi nga nuyoo ba pare ah Robert Ndiaye 2 yaaka Robert Ndiaye 2 bi fu mu jógee. Hmm. Robert Ndiaye 2 mu ngi jógee sëñ Amdi Modou Moustapha Fall sëñ Amdi ah, si caa kii si kii sëriñ Maam Serigne la ne parce que mooy sama sëriñ ma danañ talaka sama loxo yi ñaanal ma aflatu nas tamit jébal si moom nekk ah man de sëñ bi damay siifru bëri affaire yooyu noonu te bëgg naa ko lool. mu ne bis ni ki tey boo demee si làmb doo Iwo Robert Ndiaye waxuma sax ndox Robert Ndiaye doo doo Iwo Robert Ndiaye la ma wax ba Robert Ndiaye boobu moo dox gars yi dem du dàkkatundalee Robert Ndiaye doo loolu moo indi Robert Ndiaye bi. loolu am na solo mais mbër euh, ban ban ban moment nga dugg ci làmb. man bu ma duggee si làmb nag yàggul noonu yàggul jàpp ma ban année rek mais yàggul noonu quoi si tamit xam nga rek tur ak di bëri di toj see biir morom da lay yokk tur quoi loolu la. mais jëm comme booy dégg Robert Ndiaye bu gisee da nga naan kii du Robert Ndiaye te fekk ne moom la ko wax lépp lu ma am si làmb fu laa ko fay daal jom jàpp lu ma gis sama kanam war naa ko mën a pos jàll moo indi fii si làmb. mais est-ce que Robert saa dugg ci làmb ji yow man yaa jaaw ci wala ay yu demee noonu man jàng naa mais alxuraan laa jàng quoi man jàngee alxuraan bàyyi dem géej mais dem gi bi soloon naa bàyyi xel nag mais man bëri laa gënoon bëri sax benn mag bu ñu naan Kéba ak Ablaye ndjay ñom tamit dañ doon nekk comme si lamb sa ko bi ak ki man dañ dem lamb bay nelaw lamb dama jaralo wala ma séran lamb ni di joy buñ jëlul lamb ji ñu dal leen sax dama joy si lamb ji bëgg lamb lool sa mo ñëw ci cour bi fele bobu ñuy dem fele ci cour bi fe fele yu nek di bërëntu di def di bërëntu di bërëntu bu mu dugg si lamb lamb ji moom njëkk njëkk dugg dañ ma daan saako ceeb final ma man li daal xamal naa ko firil ko wat na demat may dem di jël ay sako ceeb di jël ay drapo fekkati mbisigi moy ki mbisigi gros mbisigi di jël yoy ba lol momu yokk dugal ci lamb loolu amna solo mais ba léegi euh, Robert euh, ba fan nga njëkk a ngëmb comme manam nga né sétane lamb normal apak part mbapat yi. à part mbapat yi takk ngemb ji wala. ta du say mbok ne ma ngi sétane lamb. ma ngi sétane lamb mbur lo lamburo bo doon boobu bi fi am na ñu naan waa bitig bi ñoo ko tëgg sarado fii nii si sarado bi boobu noonu maa doon dégg ñu ay ndim dëgg yoy nonu mbër yoy noonu mbëri magi ñew ma maa ndak sama papa boobu sam papa si la bokkoon on tamit nit ku baax la tamit ak Serigne Touba Mbacke baal doon ben bor su fi yoriñ ben bor allah yalla nga yalla suñu borom wel ay cëram bàyyi ko suñu karam ma ànd mom di seetaan lamb damay seetaan lamb di seetaan lamb sama xol toy billaahi mbëri lu ñu def rek mën damay jug di bàkku def loolu di bàkkuntu la mu nekk sama xol trop nekk sama deret boobu comme man bu ma wéetee sax comme nii di déglu làmb beneen affaire lay doon doon ko dégguma séeréer li ñuy wax mais daa nekk si man dama koo bëgg sa yàlla tax billaahi la moom noonu laa si mel ko loolu am na solo Robert eh, ba léegi Robert eh, fan nga njëkk a jëlee nag hmm? fan nga njëkk jëlee nag nag man nag bu moom njëkk jël sama sama la làmb sama la woon boobu ñu ngi dem juwaale bëri ji fofu 3e tour wala borom auto bi gawal, si guddi muka mu gaaw taw dem dem sama am ji bobu ñu ngi tek ñaara ñu ngi tek ñaar nak waaw di beure di beure di beure ba final de lamb ci nak nag bu ma jëlé nak bu yobu ko suñu kër comme si guddi gi noonu ñu ëgsee ma xool ay trois heures nelawuma xam rek mbeur ñu mel ci nak bo maa ngi koy doog a saa ma toogee dem dugg ci wañu desit lekk ñëw jox ko saa mu ne lii wóorul lii baaru ray nag bi xam bàyyi noonu ñëw teg dem ut ndox xëy suba daaw jënd ngoon ñëw teg mboq mi lekk ndox mi lekk loolu foofu laa a mais boo xoolee boobu ban ban catégorie la woon nga gadu la wala poussière. boobu noonu kii la poids la mooy amul bariwul ay mbër nag mhm. bariwul woon ay mbër. mais boo xoolee saison euh, nga am. saison sama boobu nag bëri ma drapeau isa aw ma trois drapeaux boobu noonu trois drapeaux la am. mooy ba ban saison ban année la. année bi nag laa dese laa laa dese jàpp. Mm-hmm. année bi moom dese naa ko jàpp moom. xam moom jàpp année sax yow moom damay am combat sax ñu laaj ma leen daa mel ni jour bii la ñuy wax de man moom loolu laay wax. Mm-hmm. am na solo. mais ba léegi eh, Robert ci saison yi wala avant ñuy dugg foofu ban moment nga sentir ne war nga doon ba ban moment. nga sentir ne war nga doon mbër. barna ay drapeau yi mo bëri jël ko barna torop ay drapeau yi mo bëri jël ko to isi tamit bo xoolee kon sama bëri damay dugg ci lamb bëri ko bu jël lamb ji duma yegg ni sax sonn naa loolu yow bo siifiree sax war nga ko xam ci sama bëri may bëri lamb comme man viu lamb mo nekk ci man man na bëri lamb bu jël lamb duma ma duma xalat ci ben bor te du continuer sama rythme di bëri non lay non lay non lay bëree ba mu jeex tak mhm bari ay saison yi moy dugg nak comme di trefe non bo xolé drapeau chef de l'État bi amoon mbour ma ngi doon beure 116 kg raison de caisse combat yi mo beure amul bo xamanteni comme jël bok na naa ak moromam man yàlla ma bind ma bëri noonu laa si mel amul lo comme nit mënta taxaw ne kii lii lay beure wala li mo nek point de forum ci beure dedet man beure nu nek lay beure comme nu ma nit songe man non lay beure mom Ah, loolu moo xas ba nekk si man. mais ba léegi Obeuck ban saison moo la gën a neex sa saison yi. Hmm? ban saison moo la gën a neex sa saison yi. saison bii ma lay wax nii moo ma gën a neex si saison yi tamit mooy saison chef de l'État bi boobu moo ma gën a neex na parce que damaa jël chef de l'État réseau de caisse drapeau Sénégal Gambie ñu indi ko fi quoi ma doon bëre quatre-vingt-cinq kilos ma jël ko dama kan lamu lan fan lamu ña ah, lamu mbuur am. ma final ko ñu daan ma final ba dem sama jël fa làmb instant yi dégg ak fan bëkk ba ma demaat ba tamit ba ba final waat ga tamit boobu noonu dañ maa daan non saison boobu noonu saison sa résultat moo ma gën a neex si sama tamit ndax parce que damaa jël lu bari. mais léegi ñu gis ne gan saison bii gan Robert Ndiaye mu ngi mu ngi naru. waaw saison bii nii sama premier sant sama kooba maa ko jël mooy làmb bi ñu tegoon yi maa jël maa jël tàng yi. ma jël ko si kaw double moteur bi nga waaw ma jël ko si kaw double moteur. di ko nuyu tamit en passage. da parce que mbër inspecteur inspecteur fa quoi si lu ma wan. isaan dëgg ñun bëri lambaa ñuy boole lekk bu jeexee jeex na quoi te aussi tamit loolu ku sportif moo ko xam ku dul sportif xamoo ko man làmb lu mu miti miti nu ñu defante bu jeexee rek jeex na parce que aw CFA tamit maa ngi koy nuyu tamit en passage moom tamit dañuy tese si làmb. day tëkkunte day def lu nekk mais bu ñu bëree bu jeexee tamit jeex na ko waa bu ñu tesee si mbedd day nuyonte tamit ku nekk dem yoonam man laa xam ko waa. Hmm. mais Robert Ndiaye avant ñu ñëw ci combat bi mooy li gën a jaaxal ñëpp mooy Robert Ndiaye dafa euh, dafa demoon ba Espagne ñëwaat Robert Ndiaye loolu nu mu demee est-ce que mën nga andi ay leeral ci côté boobu. si tamit mën naa indi leeral ko waa tamit loolu nekkul benn problème ndax parce que ndax Espagne bañ fay dem bañ fay dem noonu. coronavirus am na. Israël léegi affaire métti suñu côté ñu ñëpp sax waaw métti suñu côté waaw ñu il ñu dugg Espagne quoi dugg fii rek xamoon daaw rek ñu dugg Espagne ñun ñëpp saison bi tijjiwaat suñu ginnaaw isaan dëgg Espagne tamit ku sa wërsëg nekk di ko lekk xam nga Espagne senegal Sénégal ñoo yem dëkk boo dem neex na neexul ba si làmb yi ngay dugg sax da ngay dugg sek du neex isaan dégg xam nga mais fu la sa wërsëg fekk rek di ko lekk quoi mais man moom. lamba laa ni man xam nga mom la opté quoi te aussi tamit dama ko bëgg sa yalla tax ma def le tout tamit du may déglu di seetaan lamb yi tamit affaire day dem benen affaire ci man ma def le tout tamit part départ bi ci waat tamit mais tamit yaqul sama liggéey dara xaluma dara ne parce que buma ñëwé sama compétir da gëna yok quoi dama gën li ni ma ci nekk ak sama morom samay morom ñoo fi nekk isa dëgg fu ma bëgg dem ni jom mo fa yobbu te aussi di nekk jom bu soba yalla inshallah ak ñaani wajur man xamna ni ne damay dem mo waral lolou Hmm. mais bi ngeen dem espagne mbeur lo leen jël da ngeen dag bi ba mok wala gal ngeen jël non bay bay dem bay dem espagne bay dem espagne tamit ki mo ñu yobbu wa gal mo ñu yobbu bo xale ñun ñep gal ñu yobbu ñu dem xam jamu xam comme non rek ya ko gëna xam ba legi ci gal bi ñaata ñaata jour ngeen def avant ngeen di ak espagne ñun 6 jours lañ def ci gal gi suñ 7 jour ñu ngi dugg espagne hmm. mais gaal yi tamit ambiance da si amoon dal jàmm ñun ak suñu morom ñun ñëpp saa dégg parce que Serigne Touba Mbacke ambiance bu nga ñu yëg si suñu bopp sentir suñu bopp ñun ñëpp ba dem Espagne àgg Espagne si laa ne waa gars yi ba ñu seen lamp yi ma ne kon lii mooy Espagne ñu ne Espagne ma eh, mais ba demee comme Espagne si teg ñaari weer ñetti weer ñeent si sami tëj na gars yi commencé bëriwaat. comme man damaa nekkaat senegal damay dem si place bi foofu noonu soo soo yu miti maa ngi saa benn gars yi soo pare Ablaye Diop maa ngi koy nuyu <laughs> yàlla nañ ko yàlla may yàlla na yàlla yombal seen i këyit ak lépp di nuyu Kaka Baye Fall tamit ñëpp ñoom Kéba ñëpp maa la nuyu ñoom ñëpp sama gars yi ku ma nuyu rek dama koo fàtte quoi barki Seydina Mohamed li ñu bëgg ñoo yàlla nañ ko may na parce ay borom baax la ñun ñëpp barki Serigne Touba xam nga ma sentir ça boobu dem départ jëlaat vol ñëw ñibbi Sénégal ba ma ñibbisee kon ne samay entraînement seen bi tijji ma dem bëri mais bi nga demee foofu ñaata ñaata mois nga def Espagne. def naa fa ay onze mois de. bi nga demee foofu commencé woon nga di liggéey wala. dem naa fa commencé naa di liggéey mais xam nga looy def nekkul sa xel commencé naa di liggéey xam nga mais tamit maa ngi liggéey maa ngi am dara xam si ay dégg man xam naa ne comme bu ma toogee nii teewul damay am dara. ne parce que man lumay dem luma lepp lumay def lu ne dama si jital jom quoi isaan deg te lo am la man yalla la suñu borom isaan deg xam nga mais tamit comme luma la wax rek comme lamb chaque jour saa ma liggey wati ni tak sama telephone laa deg youtube direct lamb setan lamb direct tank yow mako xolé ni da am len luy nek ci man barki da men damay damay don tok sax di joy billahi wallahi ndax parce que dama ko bëgg te yalla tax lamb billahi wallahi tok ni di joy di joy di joy di mana? di joy man ah man naa def le tour pour ñibbi quoi parce que lii il faut que ma ñibbi quoi ma ñibbiwul tamit sama xel bi toogatul Espagne looloo waral tamit ma def mais est ce bi nga fekk na nga am ay papier wala. aw ma papier aw ma papier maa dem si ambassade ba recours na waaw dama man tamit inspi nii comme toog gën a ko wax dama bëgg sama famille parce que il est il est il est il est temps quoi ma toog ma toog fi tamit te xaw ma comme këyit kañ laa koy am quoi xam nga man maa bëgg a ñibbi maa leen waxoon noonu ne si dama bëgg a ko ñu ne ma ah man waa ñu ne ma sa wóoroo ndax wóor na ko ma ne wóor na man lu ma wóorul du ma ko wax ñu ne waa signé papier ba ñu xam weer sàngam la carte bi nga ñibbi comme nii seen fol si day départ ma war a dem Madrid ma dem Madrid weer bi ñëw tàngam sax ñu ne ma man la ngay ñibbi ba tey sax wóorul ñu comme man lu ma wax dëgg na si man man leen si damay ñibbi kay

laa ñibbi si tamit samay entraînement nekkaat samay lépp. mais est-ce que est bi ngay waaj ñibbi bi nga ko waxee sa mbokk yi fii nii est-ce que nangu woon rek man yàlla damaa mhm. ma nekk soo ba donte soo tamit ñu ngi si ko wax a aussi fii maa ngi fa bàyyi sama mag bi ma leen isaay dégg mu wàññi leen dara tamit nekk làmb ba ma leen expliqué yow mën ngaa dem garaawul ñoom ñoom ñoom ñu resté mu leen ah ñu ne waaw xam nga ñu waxtaan si raxas am rek xam nga loo gis rek dañ cee war a mën a waxtaan ak sa famille ak say mag affaire yooyu moo waxtaan seeg ñoom jiwooyu ñu si benn kaddu si benn boor si la ñu ay si laa jëm hmm. mais ñu gis ne ko bee jëm bi mu ñëw si Espagne ba léegi affaire yi daa daa neex ci moom hmm. bon xam nga rek mooy comme ni ma la waxoon sànq rek àdduna moom looy def jiite la ngëm-ngëm ak jom quoi saa dégg saa boo julee di si ñaan yàlla suñu borom xam nga mu lay suturaal su lu bari man noonu laa mel man boo ma gisee sax bu ma duggee si làmb tag ba léegi làmb ji ni ba jàngat ko man fulla ak fayda laay def fulla ak fayda même bu may daanu sax da nga xam ni kii di sonn moo ko daane du leen ko daane daa war a daanu daanu da parce que bëri na ba daanu man loolu laa gëm loolu laa gëm sama adduna ko waa dañ doomu aadama def dina jiital ci fulla ko waa te fulla ak fayda man aussi tamit loolu laa xam ko waa hmm. loolu am na solo mbër bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci combat bi sa diggante ak double moteur lu tax nga jël combat bi. xam nga ñun saison làmb mooy suñu métier dañ ko opté di ko def quoi saison bu tëjee dañuy hivernal dañuy hivernal entraînement instant yii day mënuñoo comme saison tijji ñu hivernal entraînement ba saison tijji ñun bëri ñu war a mayante xaalis di xaar leneen déedéet loolu moom man góomu ko si làmb dëgg la daan naa ko nag. xam nga làmbaaj mu boole ñuy bëri man ak moom ñuy bëri di bëri ñuy bëri di bëri ba tase final ma daan ko mais saa ngi dégg man làmb fu mu ko dégg wala loo xamante ni damay génneel xaalis saa ngi dégg si làmb la mooy sama métier amul lu ma siy xaar dama koy jël saa ngi dégg même bu ñu bëri woon le vingt le vingt et un xëyaat le vingt wala la vingt trois ñu tëgg laaj ñu ko muy làmb mu koy génneel xaalis dama génneel xaalis dama koy jël bëri waatam moom man noonu laa amee direct mais combat bi amna moment bo xam gis nañ ne combat bi dañ ko ba annulé woon mais jékki-jékki saa combat bi ñu andiwaat ko nu mu demee xam nga ñun ñëpp dañoo bokk benn gox waa Issa dégg muy Siaka man Ngel Diagne Issa dégg kii Pël Issa dégg. ñu xalaat na comme affaire yi comme comme bu bari yëpp day am ay sooxe su benn côté bi quoi. is hmm. naa dégg moo waral ñu si loolu lañ xam ne ko pose ñu ne xamal rek ñun ay nit ñu jël làmb combat yëpp is suñuy fans club ak suñuy hmm. ñu jàppale quoi hmm. moom doo aram loo dugg lu ne doo ko yaakaar bàyyi ko kon ñun dañ yaakaar am tamit yaakaar ñu am yaakaar si ñun de parce que suñu fans club bi bañ jàppee ba tey ñoom bàyyi ñu benn boor is naa dégg looloo waral ñu nekk si quoi affaire yooyu mo waral tam ma jël double moteur double moteur mo la mooy mbër donc dan naa ko sax mais tamit day def ci lamb lu ne mais man mi dan ko sax def naa ci lamb lu ne kon ñu ñoo mëna mayante xaliss le 8 janvier bi ngay gis ma ngi wara bëre grand combat mbalign fi ni lamb Seydi Diakhaté ah man ak Papa ndjay onko isa ay dégg ci biir janvier bi ñaari combat nga am waaw ma ngi bëre wara bëre grand combat aljuma gi ngay gis ni le signature bi hmm maa ngi war a bëri grand combat mais comme lu ma la wax rek man laa moom sama métier fu ma fekk damay bëri. adversaire loo koy wax. ah maa ngi koy ñaanal gudd fan. ak wér gu yaram. saa dégg yàlla wéral suñuy tur man ak moom ba jour ba rek ñu jox combat bi lu mu laaj quoi. parce que joxe cër quoi bëri ko ci fulla ak fayda. ne parce que ku tëgg làmb ji tamit. Hmm. nit gënu ko ko ah, su ñun. ne parce que moom nitu mbëri la quoi. Ah. saa dégg te aussi li muy def nii day jëmal làmb kanam. ne parce que ay mbër bo bokk ak ñom ben gox di gis di leen jëmele kanam ngay dugg ci autorité yi di leen jàppale ci ben côté bi kooku non amuñu fayal mm. ne parce que ñun ak mom ñoo mëna may ndax xaliss deul ma sol makay ñaanal wër rek bu jëru combat bi jëru tamit ñi ñoo bërek ci fulaak fayal la may ma dal ci ko comme na ko daan défer mm. waaw ko be nga nga fekk double moteur à domicile bi palmaga mm. ah man loolu tamit comme du gan ci man quoi fekk mbër dëkkam na parce que damay walé yaan li ji isaay yi même première bu ma ko bu ma ko <laughs> comme man saa bu ma ñëwee rek ak nu may mel quoi man moom kenn xamul nan laa si làmb hmm. kenn xamul nan laa si mel isaay dégg ñëw bëgg bëgg kaa indilaat beneen anam tamit hmm. yàlla ma man dam si kaw ma faxas ka jàll dem sama yoon hmm. loolu laa gëm sax te loolu bu soobee yàlla incha allah ma woo ci combat man maa ngi maa ngi oo ñëpp isaan yi dégg samay mbokk samay fan si kalam ñoom Marsek isaan yi suñu président écurie di oo samay papa ñoom Khalifa Ndiaye ñoom Père Ousmane isant yi dégg di o waa diaspora bi nag ñoom Modou Baye Fall di o ñoom Kosom ñoom Ablaye Ndiaye ñëpp isant yi dégg nda parce que aw ma seen nda parce que samay grand lañ ko waa ku ma limul rek ñoom boofaal ñoom ñëpp ay borom baax lañ ko waa dañ may jàppale si lépp isaan yi dégg li ma manqué isaan yi ñoo may bër li ma lan la waxal waaw mu ñëw parce que Serigne Touba Mbacke bàyyi ñu benn boor di sant sama grand bi toog Iba Ndiaye moom nit ku baax la quoi bàyyil benn boor di sant ñoom Déthié Seck ñoom Bouba Diop mais parce que ñii ngay gis nii ñoo ñu yor si bëri barki Seydina Mohamed bañ nekkee xale ba tey fii lañ jàng bëri fii la defee lépp isaan yi dégg leen sant a ah, passage quoi ndax parce que ay borom baax ñoom ngañ deebal xam nga ñoom ñëpp ay borom baax lañ ko waa xam nga dina wax ne combat baa nga loxo man man entraînement la ma sas xam nga fulla ak fayda te aussi man loolu laay bàyyi xel ko waa hmm. Robert loo wax waa Zambro TV hmm. waa Zambro TV tamit maa leen di sant di leen bëggee tamit barki Seydina Mouhamed comme la ma waxoon rek budul budul budul ñoom ñun duñu génn télé ko waa budul ñun tamit ñoom duñu caméra kon di ñaan yàlla comme mu rafetal ànd bi nag ndax ànd bi rafet na trop ñun ñu ngi génn télé nice amit instant dégg di yëg suñu bopp ñoom tamit ñuy caméra nice di si yëg seen bopp billaahi kontaan si ñoom trop waaw kontaan ko ku nekk waaw jaajëf bëggee di yaay kontaan